الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ci ndigalu Cheikh Mamadou mu jaar ci sëriñ Mamor mii nga xam ne day mbokkam di wëlëreem ci liggéey bi di taalibeem ngir jëmmi sëriñ Touba sëriñ bi nim ko baaxoo waxee rek ànd ak bokkam yépp ci liggéey bi bokk yëpp ànd yéene ko ci ndam ba kenn ku nekk wet ga nga féete nga defa taxaw taxawaay bu rafet bu matale ba waxtu wu nekk sëriñ bi di wax xelam mu dal ak mbégteem ndax ni bokk yi ànd ak moom liggéey bi ànd nañu mat a sëkk wu rafet lool ànd ak Pastef moo tax bokkam yi itam kenn ku ci nekk am na liggéey boo xam ne dala ko féetale ci liggéey bi liggéey boobee bu ci jubloo daf lay sant nga taxawee liggéey booba loolu bu li ñu bëgg a wax mooy sëriñ Mamour mii waxoon nañ ko ci ay wax yu ñu waxoon ci ginnaaw bi ñuy bañ kuy waxal sëñ bi wax joo xam ne jógewul ci sëriñ bi ñu xam woon ne sëriñ bi day leen lu nekk am na ku koy wax loo di ko liggéeyloo ca loola waaye lépp loo xam ne jëm na ci am njàng mu mel ni njàngum alxuraan ak xasida sëriñ Mamoor mii moom sëriñ Fàllilu moom la koy taxawloo waxtu wu ne itam sëriñ Maamoor liggéey boobu mu di ko ànd ak bokk yi àndin waafet nekk mooy waa raabitatul madaari alquraaniya bi ci dëkk bi te sëriñ bi ko sëriñ Basiirum sëriñ Fàllu jiitee ci dëkk bi sëriñ ànd ko sëriñ Basiirum sëriñ Abibu sëriñ Xaali Jaxate mii ànd ak ñoom liggéey booba ba tax lépp lu ci sëriñ Muntaxaa defaloo sëriñ Maamoor sëriñ Maamoor sëriñ Xaali mii la koy àndal naka noonu itam daayiratul muxaddamatul xidma bi nga xam ne sëriñ bi def leen di liggéeyloo ci jumaa ji ak lu ci aju muy mbirum diine rek mbirum diine buñ ko waxee kon bàqiya la ci bokk wala armeel yëpp bokk ci ak jumaa yi ci dëkk bi yëpp waxoon na ne bëgguñu boole seen bopp ñu tënku ci benn tënk te boobaa itam waa muxaddamatul xidma la waxoon ñu leen soññ ñu ànd nas ba waaye loolu lépp ngir bañ a guddal ci gàttal sëriñ Maamoor mii la sëñ bi yónni bëgg lam ko daan yónni ci soññee buñ jàngawaat alxuraan ñu jot liwaat ko bëgg ñu defaat njàng mooma loolu nag sëriñ Maamoor mooy leeral nag ko sëriñ bi waxee ak na ko sëriñ bi bëggee ak na bëgg mu tëddine ba mu demee na mu daan demee te na mu daan demee mooy aminu rafet wu sell wu matale woo xam ne la ci war lépp ci taxawaay danañ ko ci def moo ñii ma ko àndal nii ma ko waxee la ci war ci ay pas-pas yëpp pas-pas yëpp ñu daan ko def la ci ñaan war ci ay ñaan yëpp ñu daan ko def ba luñ ci mas a ñaanit rafetees na ci jort ndax lu ca bari dañ ko daal di gis ci saas mel ne yàgg nañoo baaxoo mu gëj a taw mel ne dañuy soxlam ndox ñu alxuraan mi fas ci ñaan balaa yàgg ñu gisub taw ci loolu lan mën a gëmee ne leneen lañ ci ñaanit noone lay nangoo ni ni taw ba nangoo kon loolu ak xel mu dal ak rafet njort ak sant yàlla rek lañ see mën a boole kon ñu jox sëriñ Mamor mu jottali yónneenu sëriñ bi lu mu ci jottali lowaat kenn ci bokkam yi ñu bokkal ñu bokkal liggéey bi kooka la la mu ci war a jottali mu jottali ko bañ nase ko nañ ko daan dese ba tàmbali ko bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu wa akbaru ridwani min allahi taala ala abdillahi wa xadimi rasulihi maulana cheikhul xadim bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu maag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 ànd ko itam ak ñi ko daan àndal naka jekk muy ñi suñ kilifa yu baax yi nga xam ñooy jiite rabitatul madaris alquraaniyya fii Touba sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Fàllilu ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Habibu ak sëñ Xaari Jaxate mi nga xam ne fu ñu nekkut moo leen fay nekkal fu ñu war a jël kàddu moo fa moo leen fay jëlal kàddu ànd ko ak Cheikh Ibrahima si mii nga xam ne mooy itam noo seq liggéey bi itam di ci def jéego yu am solo